ma ngeen ñu dégloondoo Maty Trois Pommes nee na du waa Pastef nekkate mas nekkate nee na Sonko du ennemi Macky Sall Maty Trois Pommes yoo li ñuy wax yëpp Macky Sall la Ousmane Sonko du woon noonam noonam Amadou Ba la déglu leen. génn na dem yoonam ak ay parce qu'il a été trahi il est dégoûté il est dépité. dégg nga Macky lay waxal. c'est tellement grave ñun fi ko foogee woon am na ku Mati dépassé na sax dépassé des gens ont ont ont commis des pas des erreurs mais des choses extrêmement graves. dégg nga. la Karim les vont sortir. dégg nga kon ñoom ils jouent leur dégg nga waaw. am na nag mbër bi nga xam ne moo tax ñuy def li ni mel. Amadou Ba. mbër boobu yi ngeen koy dugal ci kàmb. yi ngeen koy dugal ci kàmb. Amadou Ba lay waxal waaw waaw. am na ci nag benn DG boo xamante ne moom genre distributeur automatique. mbër kay mooy candidat waaw. moom moom dafa ñëw di dëgg dëgg dëgg bopp dëgg. gars yi DG boobu laa bëgg xam kañ la. moom moom daal moom moom moom surtout bi mu moom moom day maye rek. ban DG la waaw. di financer waaw pour na mbir mi boy. deng na mbir mi boy. ndax nee ñom report arrangé wu len deng Amadou Ba report arrangé wu ko. non seulement report ñoom bëgguñu ko. waaw ñom ñoo nekk di financer également une bonne partie de la presse. deng nga bu baax. dégg nga waaw. sama xarit la benn politicien boo xamante ni bokul sax ci ñaar ci ñaari bor yoy bokul sax ci APR. deng nga. mu ne ma ci sa mbokk yi presse bi. waaw ci bari xam nañ ñu démé ha waaw.

Sall mu jël ay responsabilité am ak mu ñàkk koo jël dinañu raak ak yéen ci internet bi. ñun dañuy raak génne seen i tur yéen ñëpp. raak fekk ne. xeex waaw. kenn du ko def am na ko ma ne xeex Mati duñ ko def ay affaire xale yow yu noonu déedéet. waaw da nga koy def ak xel. c'est le jëfru de la paix. maîtriser ses émotions. ah waaw doo génnee say bal yëpp say. fàtte nañu Sonko léegi ñu ngi rayante seen biir waaw. vous allez le payer. Amadou Ba la jiiñ ne moo taal réew mi. Wow. waaw dafa am nañ nañ seen ak ak preuve ko ne Amadou Ba mi comme bañ ko dafa am nationalité française. waaw preuve amul lu ci waaw na ngeen ak la ngeen def. ko ne ci internet bi. nga ñu mi. ndax lan bëgg falu. bëgg falu bëgg sacrifier sénégalais Amadou Ba falu waaw. ndax pouvoir palais. palais waaw Amadou balay waxal. yéen tey ñu def tay élection tay 25 février. waaw mois bi 25 février ak ñu bëtal ko bu quelques mois mais qu'est-ce que ça change dans la vie du Sénégalais lambda. ça change tout nak qu'est-ce que ça change dans la vie du Sénégalais lambda. élection yi kenn du pousse cest à lan la mëna changer ci ci ci ci ci ci ci Sénégalais lambda. dégg nga ko nga da ngay yewu dem ah. liggéey wacc joxe de balaa ngay dem liggéey joxe dépense dem liggéey wàcc xool daf sa njaboot ñu ngi ci. kan moo liggéey Sénégal xool seen école. kan moo liggéey Sénégal waaw. koo xam ne doxantewul kat kat. waaw ñàkk jëriñu la xam. waaw kooku noonu tey ñu def tey élection vingt cinq février. waaw def ko décembre gi dans quelques mois lan la mën a soppi ci dundam. xamuloo lu mën a soppi. gisuma ko décembre dinañ fi toog ba décembre ak Macky Sall. lu fi jar daw bay ngi ñi a taal Sénégal di di di reylu ay xare ay xale. nee na reylu ay xale. parce que ñoom politiciens yi. waaw dafa am benn groupe politicien. waaw boo xam ne ñoom seen intérêt mu nekk en jeu. waaw.

du Ousmane Ba am na ku ma ko wax lu bon fii. Ousmane Sonko c'est un idiot. mi ngi xas gu rëy gu tey ni nga. Euh, li fi jot a nee moo nekk ci ginnaaw Sonko. on parle de de juge corrompu ah. waaw xaw ma def dëgg la ou pas. dégg nga. xam daal y a des preuves. waaw ci yenn candidat yu am double nationalité waaw am na preuve yoo dina génn. gars yi laaj leen partagé leen tey laaj bi dina neex de. waaw. nee na Amadou Ba moo nekk. il est populaire certes mais il est pas aussi puissant. il est populaire certes mais il est pas aussi intelligent et et fin. foofu nga juumee nag. déedéet. Sonko soxlawul Amadou Ba. dafa am ñu nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko. di ko financé dégg y a des personnes. Il y a une personne un groupe de personnes. Amadou Ba Amadou Ba lay waxal. Ousmane Sonko. dégg nga Amadou Ba nee na Amadou Ba moo nekkoon ci ginnaaw Sonko. ko nag ngaaka la ndeysaan dañ koo nax ngaaka la. nee dañ kaa nax. moom daal liggéey moom mooy moom ak ñi mu ànd espace taal leen Sénégal. waaw. ñooy nekk ci ginnaaw bu ñu paree ramassé. wax leen ma ban DG lay wax. les bénéfices. am na ku biir Mamour Diallo. ndax vrai politicien nit ku am bopp. ban DG moo fi nekk di joxe xaalis. yow nga ne yow jeunesse bi ñoom yow la ñu àndal ngay doxantu bu biir suite bu vrai politicien nga nekk nit bu réglé. waaw nee na Amadou Ba moo nekk ci ginnaaw Sonko. comme Sonko doo yeewu fajar di julli fajar ba pare dem dina naa ngi dem a li jëm ci ñoom Adji Sarr ba biir suite ba tey déedéet. déglu ko rek déglu ko rek Ousmane Sonko dafa am ñu nekk ci ginnaawam. dégg nga. tey nag yéen ñii nekk nag ci biir gouvernement bi. waaw jege Macky Sall rëkk. dégg nga financé booy yi kon tey mi ngi mel ni yéen nga di jox dëgg. ñi wax ne Ousmane Sonko dafa am ñu nekk ci ginnaawam. dégg nga dégg nga. et président Macky Sall yëg na lu mu demee de. ñu ngi lekkante seen biir. xam na lépp nee na Macky Sall xam na. président Macky Sall. gars sama gars il faut que ma taxaw fii tuuti ñëpp xam nañ man Maty Trois Pommes faalewu ma ko du ko sax seetaan waaye démb sama live dama ne défaite bi ñu am temps yi jaaxle bi waa APR am moo gisatuñu Maty Trois gisatuñu Bah Diakhaté ci la ne xaaral ma dem séti Mati Trois ba ma Mati Trois ma sétal live am ci la dégg nak muy wax li dama bëgg ngeen comprendre né limuy wax dëgg la Macky Sall dafa dem ba ci biir wolotul Amadou Ba mu xamné Amadou Ba da koy trahir motax mu inventer li Karim Wade wax li Karim Wade wax ne euh, euh, euh Macky Sall ci langamu ne euh, Amadou Ba mo mo tax Jomay

Amadou baa mooy candidat bu ko Macky Sall dàqee premier ministre Amadou Ba day nekk indépendant bu ko neex sax bu boobaa mu ne xaaral ma dem ànd ak Jomaay xam nga ñu jëlee fi Macky Sall kon Macky Sall il n'a pas le choix am nag ñu ne nee na Macky Sall dafay dafa def euh, gisoo temps sax kay soof génn na benn vidéo benn live bu mu mujj def di wax ne faux yi ñu fi doon jéem a takkal Amadou Ba yéen a ngi rappelé jéem nañ fi takkal garde corps Amadou Ba ay faux loolu yëpp ay complot la woon parce que Macky Sall moo bëgg débarrassé wu ci Amadou Ba xamul lu muy débarrassé wu ci moom mat Trois nag li mu wax safa dafa leer Amadou Ba dafa am doole ku mel ne Zahra Iyane Thiam génn na mu ne élection yi kenn du ko reporté te pourtant APR la ku mel ne Birima Ndiaye génn na mu ne élection yi kenn du ko reporté Macky Sall moomu loo réew mi sa baay moomu réew mi ñooñu ñëpp Amadou Ba ñuy liggéeyal am na ñeneen am na ñeneen ñoo xam ne ku mel ne Cheikh Cheikh Omar Anne la xaw ma nu mu tudd te mu nekkoon DG COUD euh, ñoo ñëpp Amadou Ba la ñu la ñu la ñu àndal. APR dafa diviser wu fi mu nekk nii dafa mel ne rek nga dugg ba ci biir réunion pale nga jël ay grenade nga taal ko mu am implosion. ça panique de tout parts boo leen gisee Mati Trois Pommes di xult di menacer xam leen ne ñun am nañu ndam ñun dañoo am ndam fi mu nekk nii Ousmane Sonko dafa am dam Ousmane Sonko yoonam nekku ci. mi ngi toog euh, euh, euh, nu mu tuddati mi ngi toog Cap Manuel comme ni mu leen ko waxee nan leen ci loo ne yéen ci jàmm ci loo leen ne duma kandidaa maa ngi ci jàmm boo nekkul ci jàmm c'est votre affaire boo nekkul ci jàmm I don't care Sonko maa ngi ci jàmm waaw maa ngi yollale dinaan sama yoppoole ngeen bëgg ku leen yóbbaale parrainage du ma yokkoole mang ci jam yene nga ngi sen bir sa c'est affaire opposition bi di dof dof lo, duma candidat waye Karim bokul mang ci jam lolou la len Ousmane Sonko bayil ñom nak fimu nek ñi nga reyante sen bop mais nañ dégluwaat Maty Trois Pommes parce que limu wax c'est très clair nee na Maty Trois li wax len la Amadou Ba dafa xam bu ñu élection yi décembre Macky Sall da koy dindi duggal bopam Macky Sall limu bëggon def lenn la jëlé fi Amadou Ba dàq conseil constitutionnel indi conseil constitutionnel bu bess conseil constitutionnel bess bobu ne ko yow mën nga def 3e mandat mu ne légui Sonko kay bokk ñeneen ñi kay bokk mom mu bokk dal di sàcc élection yi Macky Sall loolu la bëggoon def Amadou Ba xam loolu ne loolu du fi am commencé dem ci média yi di dal yónni ay nina parce que Amadou Ba dafa yor ay yaar la yor yónni Birima ndjay Birima ndjay ne loolu du fi dal mu yónnee Zahra Iyane Thiam Zahra Zahra Iyane Thiam ne loolu dafa dal loolu la Maty Trois Pommes mu wax mais déglu leen li mu wax sa grave moom yemul ci wax loolu dafa ne Amadou dafa jël ay booy ak ak quatre ministres ak benn DG DG boobu nag laa bëgg xam nee am na benn DG buy buy génn di may xaalis DG boobu laa bëgg xam am na ko fi tudd Mamour Diallo man yaakaaroo ma ne Mamour Diallo la non il faut que ñu déglu Maty Trois Pommes parce que li muy wax waxuma ne dëgg la mais le fait que muy attaqué Amadou Ba moom moom musul bëgg Amadou yàgg naa attaque Amadou Ba benn live am sax benn waa Amadou Ba dugg boobu sax tànnaguñu woon Amadou Ba Maty Trois Pommes yàgg na attaqué Amadou Ba benn waa Amadou Ba di wax ne Amadou Ba c'est un traître mais déglu leen li tax ñu koy teg c'est parce que dañ leen bugg wax rek ne fi nekk ne APR problème bu rëy la ñu am Macky sàll problème bu rëy Macky nag dem na ba ci biir xam ne Amadou Ba moo fi sës mais ku yaakaar ne élection yi dina am le 3 mars

est-ce que du ñu rey Amadou Ba est-ce que du ñu rey Thierno Alassane Sall surtout waa PDS parce que candidat yi bu ci kenn deewee rek dañuy obligé dàq élection yi bu ci kenn deewee dañuy dàq élection yi Macky Sall il est capable de tout Amadou Ba nag même kay soof mi ngi wax génn na fi faux billets yi da gars yi bëgguñu ko dañ ko bëgg takkal parce que xam ne du gagné dërëm du ko gagné nañ déglu. am fula xam fa mu xam bu baax na muy na muy defee. ku muy waxal ma ci sori. ah Doro Gueye lay waxal ah Doro Gueye la. non damay xam ne ndekete waaw. man dama toog mu yàgg ma ne kon mbir yi yi laaj leen partagé leen. du du l'échappé en fait. mati dañuy avancé dañuy avancé. ba mu yàgg ma ne kon kii mooy ponkal. yéen ñi di nekk nii ne ni ngeen di katalaayu. di fay boy di yàq di fay presse bi. dem di ñu jébaane ci bitim réew. waaw. billaay du ngeen ci am ndam. dégg ngeen. fii laa koy waxee peut-être du ngeen ma gëmagum nag. dégg ngeen dégg ngeen dem ba ci kanam. di xam ne ponkal ngeen ko sekkal. dégg nga dégg nga. di ngeen xam ne y' a y' a d' autres choses d' autres d' autres d' autres d' autres paramètres yoo xamante ne. dégg nga leen. Macky pareegul de dégg waaw. amna na lu ñuy pare. mbir mi nekati du wa ex-Pastef wala Ousmane Sonko ñooñu. dégg nga ñooñu et c'est des enfants ils s'amusent. deng deng dégg nga. ñooñu ay gone lañu dañuy fo waaw mais nekkate ponk li bëgg. waaw nga ci ginnaw Ousmane Sonko làqatu. moy Amadou Ba limi wax c'est grave. gars ñu continuer. xaram il est 42. kon ma ñëw ci. ah defe naa fi lay arrêter waaw l'opposition hypocrite.

xaaral xaaral xaaral xaaral mi ngi nee na Amadou Ba day dem kaso nee na DG yëpp dañuy dem kaso déglu leen. fekkee ne da ngeen yor tey da ngeen nekk au cœur de la république yor les moyens bu ko ñoo sacrifier taal réew mi. dégg nga dégg nga. vous êtes des pauvres types. <laughs> je vous méprise. et eh, et eh. vous êtes des rats. et eh. su boobaa su boobaa dinañ leen summi di di une métaphore seen xott yi la ñuy génnee. et et. produire mais non non non non. ah là c' une métaphore que je que may may kii. ah seen xott yi la ñuy génn ci internet bi. dégg nga lépp leer. maslaa bi moo doy. dégg nga bëggatuñu yéen politiciens yi ngeen ñuy caxat caxatee. waaw et que vous tuez nos enfants et nos frères et nos soeurs. nee wa waa ñoy ñooy taar mi. pour vos intérêts crypto personnels. pour nek pour fal pour fal Amadou Ba. voilà. ñun on n'a que le Sénégal. non pare na on va continuer. ay Anta Babacar ay ne sont pas patriote que nous. dégg nga Zahra Iyane Thiam waaw parce que. Zahra Iyane Thiam ngi attaqué seen biir ñu ngi attaqué seen seen biir. si damaa ton père kenn du xam yow lay kan. dégg nga. on en a des enfants ci APR la bokk DG la dafa ne d'accordul ci ñu dàq élection yi parce que Amadou Ba la àndal léegi ñoom ñu ngi lekkante seen biir nee na nag da ngeen di dem kaso nee na ñoom ñëpp dañuy dem kaso. gars yi may la ma deux minutes rek léegi mu jeex après ñu avance voilà les messages like leen partagé leen tey bisu ndam la may leen ma tuuti ba Diakhaté ci li ma wax ni ngeen capturer ko déglu ko waaw kay déng ngeen et je vous l'avais dit déng je vous avais dit beaucoup de choses uh-huh. am amna yu ci bëri Souleymane Diop confirmé na ko waaw

waaw je vous le jure. voilà gars, nañu yem foofu sama chiffre bi sax ñëw na. 44 de la République on vous connaît on a vos noms on a les preuves. voilà. Et wax vous allez nous le payer. là vous sentez puissant dans vos dans vos dans vos grands bureaux. vous avez de l'argent vous sentez donc yéen seen biir et tout vous sentez puissant. mais li jëfuru la li suñu victoire la jëfuru la talatuñu sax Sonko. vous serez tous en prison.

defe naa doy na léegi naa continuer sama live parce que tamit il faut que ñu wax ci élection yi il faut que ñu wax ci 111 il faut que ñu wax xaaral ma changer euh, position mais xam nga dafa baax ngay dem ci ennemi bi di ko déglu Mati trois pop gëj naa ko seetaan mais ngay dem di ko déglu da nga fay jëlee ay xibaar xibaar yi ma jëlee ci Mati trois pom gis ngeen ko mooy ne ab les nekk heure bi ñom dañu célébrer dañu waron Ousmane Sonko mi ngi ci prison bi bokul ah en ba sen élection xex amatul pap na xexatuñu heure bi dañu victoire mais ma une trois dépressive un bagage dépressif ñu nekk di xultu di di wax né Amadou Ba mo nekk mo nekkon ci Sonko ñom néna néna moy jël xaalis di jox Boy pour ñu tar réew mi parce que ñu Macky Sall reporter élection yi. élection yi Macky Sall dafa dem ba jëfru dégg dafa dem ba jëfru Macky Sall ba mu desee fukki waxtu dix heures de temps pour euh, campagne électorale Macky Sall génné benn décret ba mu génnee décret bi ñun jàqoon nañu suñu adina tukki na parce que li taxoon suñu adina tukki moy né américain ambassade Amérique. dafa wuteeg département américain ci lu gaaw dañoo génne benn communiqué di féliciter Macky Sall nan ko waaw bu dee dafa am ay corruption li nga wax dëgg la il faut nga def enquête waaye nag fexeel rek daal nga organiser élection yi après. loolu la américain yi njëkk wax CEDEAO tamit loolu la wax man américain ba ma gisee seen seen seen parce que man je suis américain man dama dama je suis américain te dama yàgg wax waa Pastef fexe leen ba élection du am parce que élection bu amul dafay nekk un vide institutionnel te Macky da ciy am problème. loolu laa doon wax parce que man xam naa américains yi ni ñu mel dañoo fonk élection moo tax Macky Sall ba mu njëkkee éliminé dafa fuy Macky Sall dafa fuy parce que daf ko éliminé ambassades yi d' ci France d' accord ci CEDEAO d' ci waaye comme ni mu leen ko waxee ba Youssou Madjiguène Ndour waxee ne lii du jàll billaahi wallaahi taalaay xaw ma ndax tombe moo waral ay gaaf xaw ma waaye Ndour moom laa gis nit ku ku am doole ku am tour bok ci Macky Sall koo xam fi nga xamne fofu la ñepp affaire bi noy ñepp di dem ci Macky Sall di ko félicité Youssou Ndour ci la génné tweet té Youssou Ndour dafa jël ben avocat mu bindal ko tweet bu doy war parce que Youssou Ndour xamnañ nañ ne gars yi bëgguma wax ne jangul mais lolu bindu ko conseil moko ko bindal tweet bu doy war bo xam sans sans sans équivoque mu ne li du jall li du jall bam ko défé ci saa américain yi tamit sen position changé